gaz si kilo bi dafa manqué yenn ci goxu ndakaaru yi ba jaaxal yenn ci ay boutique yi Abdourahmane Diallo di ci àddu gaz moom taay manqué nag doole manqué nag doole rawatina bu si kilo bi booba gën a manqué boobu moom manqué nag doole temps yi parce que boo si bàyyoon xel semaine bi en tout le temps doo toog benn fan ñaari fante doo am gaz léegi mën nga toog ba trois jours doo am gaz troisième jour bi gars bu ñëwee chargel la benn trois trois gaz lañ lay chargel bàyyi la nee la noo gaz dafa manqué sa morom bitigee ku nekk foofu ma am si féetee kaw ñoom ñooy gën a xam problème bi ban côté la féetee manquement de gaz bi parce que ñoom seen bopp ñun ñu ñuy livré ñun bitigéey andi ah, ñu si benn preuve benn leeral. ginnaaw loolu mu ngi xam la ne ñàkkum gaz bi feeñul benn yoon ca njëg li. prix bi prix bi laaluñu ko prix bi moom fu mu nekkoon la nekk ba léegi gaz ba manqué rek mais prix fu mu nekkoon moo ngi fa ba léegi. bu ñu sukkandikoo ci Modou Gakoum di beneen boutiquier naam sax amul lu ko leer ci ren moo ko waral. gaz bi moom fi toll nii comme jafe-jafe guerre bi am na mu am wala mu normal mu yokk wala mu wàññeeku moom a état bi fi mu toll nii moom moo ciy def ay pexeem téye ko nii muy manqué ak yooyu gëm naa ne am nañu réserve mais dañuy sóoraale mu manqué ci kaw moo tax ñu koy téye nii muy manqué ñuy lijjanti ba xam dañuy yokk prix bi wala yokkuñu ko lool moom amaguñ ci lu leer dëgg dëgg dëgg. yile butukee ñuy dajeel am njàqare ci gaz bi manqué ci jamono ji fii sàkku ci njiitu réew mi mu daal di ci jël ay matuwaayam ci ni mu gën a gaawee.